ñaan gi lañuy tudde duwaawu Muhammad ibnu Waasi moom nag ñaan la goo xam ne day dàq seytaane te it day musla ci mooy yàlla day musla ci seytaane day mus la ci mooy yàlla ñu bari mi nañ ko Muhammad ibnu Waasi mu bàyyi ko nag ku baax la woon ku siiw ci ak mbaax te ragal yàlla boo demee ci téere yi jàngale jaar-jaar yi gaa yu baax yi wali yi da nga fa fekk ay jaar ak mom téré bu mel haliyatul awliya te abu nuaym al asfahani talif ko wala téré bu mel ne dimashq ibnu asakir moko talif wala téré bu mel ne siyaru alaami nubala te al hafiz shamsuddin al dhahabi talif ko wala tabaqatul kubra bu cheikh sharani wala tabaxaatu suufiya bu Cheikh Manawi yooyu yëpp ak yeneen yeneen téere te ñu jàngale jaar-jaari gaa yu baax ak yi indi nañ fa ay jaar-jaaram moom ak ay waare yu daa waaree ñaan gi nag da ko ñaane woon yàlla ngir dàq ko seytaane nee ñu nag bi mu ko njëkkee ñaane yàlla seytaane da ko feeñu ci boppam ne ko ñaan gi boo ko xamul kenn waxoo ko kenn yow moom daa lay bàyyee yàqal sama yoon du nekkati ci yow duma la lijjanteeti kooku ne ko Muhammad ibnu Waasi' ne ko kon day danga ma yàqal defal lu la neex ndax ku ma gis rek ku ma ko mën a xamal rek danaa ko xamal ñaan gii nettali boobu war na téere yu bari bari yu mu ñëw sëriñ bi indi na ko ci القصيدة سفينة الأمان بابا خامنة أي نيان دونغلا إندي نكو تبير ياخ بانيك سفينة, سفينة الأمان بانت جيسخ مون جيني جيس نونو متامبلي اللهم إنك سلطت الشيطان علينا عدوا من أعدائنا بصيرا بعيوبنا مطلعا على عوراتنا يا أنا هو وقبيله من حيث لا نراهم اللهم آيسه منا كما آيسته من رحمتك أقنطه منا كما قنطته من عفك وبعد بيننا وبينه كما باعدت بينه وبين جنتك ومغفرتك إنك على كل شيء قدير فضل يوم ديس نكو جانغ نك سوبا اك نغون نيات يون ديكو موسلو شيطان اجيت داي موسلو يتي ما